mars bi passé 2019 maire bi maire Pikine Nord dafa woo Racine Arone suñu président parce que mom ñepp xam nañ ko ci taxawayam ci walu politique Pikine tay ku fi wax walu musique wala walu rap wala walu art lepp lu art la rek do ko ci génne ñi and ak momit so len xolé vidéo yi di daw seeni jëm feeñ na lu bëri ci ay action yu am sur le plan de la comédie oh, donc mon yalla y a lu ko may mais ñi mu andal amna lu leen yalla may te wa Pikine xam nañ leen te ñoñu bëgg nañ yobbu seen gox fu sori nous waral ñum ñu ñu waxtaan biir na bi dinañ yow ndax chaque fin d'année dispositif culturel bëgg na def ben événement ci goxam comme nag yaa ñu proposé maanaam année bii ñu ànd liggéey mais dinañ ko def avec bon gré monsieur le maire ñu waxtaan tënk mënuñu am na budget bu fi ne daanaka mët na ñetti millions dinaa ko génne teg ko ci seen loxo ñu dugal ko ci benn compte ngeen commencé liggéey bi. bi ñu ñu dem toog ñett suñu rukk di réunion pendant quatre mois di réunion di waxtaan di daje di génne xam-xam bi ba bind projet bi. Bini ñu bindee projet bi ba pare ñu program ci programme bi bi ñu tegee programme bi te loolu dañ daan yendu kër raas de maire bi joxuñu dërëm saa waa ji moo daan góorgóorlu dem uti junneem fii ñaari junneem fële toggal ñu ceeb dégg nga jox ñu ataaya ñu naan suñuy ñibbi kenn ku ne mu jox la 1000 francs nga passé pendant 4 mois bi ñu loolu moo fayaat xaalisam Nous avons un en dossier en document dans le 6 000 6000 francs qui walu dépense document yi demandons paré ñu demandé audience pour gis monsieur le maire monsieur le maire melni ci bi le maire waxtaan ci projet biñu ñuy masla di masla di masla ba Touba ba yi suñu biir bi ñaxtu yi nag xaw ñoo tànqal ci la race forcé dem këram ne nag foo nga gis ñu foo foo ñu toog ak yow ñaari fan lañ ci teg maire bi wooñu keroog meer nañ lool waaye bi ñu egsee mu dalal nu xam nga politiciens yi dañuy xaw a <laughs> luq njor daf ñoo dalal billaay waxtaan nu ñun waxtaan wu am solo delloo suñu wàcce ñu ba suñu meer giif ñu waxtaan ba tënk ñu ne ko nag monsieur le maire waxtu wi gàtt na te fi ñu toll une semaine pour ñu liggéey ko ci festival dina metti ndax du tey la ñu mës a def festival. dañ lay ñaan ñu wàññi def ko ñaari fan wala benn fan budget bi nu mu tollu rek baax na nu mu toll ñu def lépp ci jour bi. mënuñu ñett du fi dal maa leen waxoon une semaine maa leen waxoon 3 millions dinaa ko dinaa ko sax yokk faf la di wax dinaa ko sax yokk te am nañ nag ay vidéo yu ñu gardé ci waxtaan woowu. am na vidéo yu fi ne gàdde nañ ko daan ne dinaa ko yokk te dinaa ànd ak yéen sama tànk seen tànk ñu uti ay sponsor <clears throat> ak ay autorité dinaa leen impliqué ci bis bi ba nga xam ne bis bi dina luq njur ñu daal di yaakaar mënuñu nag dès suba na ngeen na ngeen tëggaat projet bi ndax am na lu ñu ci defoon dispositif culturel boobu maanaam ñun suñu turu kuréel bi xaw na ko déranger mu ne nañ ko def ci turam moom ba pare nañ nañ nañ créé kuréel boo xam ne dañ koy tuddee gouvernement culturel comme mooy suñu maire wax nañu mais nit ki gëm rek nga mën a def te ñun lu baax lu baax moo ñu taxaw na jóg ñu ne ko mais certes monsieur le maire d'accord waaye nag dispositif culturel du fi mës a jóg ndax ñun moom la ñu am comme outil bu ñuy liggéeyee mënuñu du fi mës a jóg man sax li ma gën gënaloon ngeen jaay ma tur ñu ne ko déedéet loolu moom mënta ne donc waxtaan nañ fa keroog ba tënk loo xam ne bi ñu fa jógee dem vraiment ñun ñëpp kontaan nañ mais jour boobu lañ ko gëj a gisaat ñu toogaat presque deux semaines di demander audience ci la nag gars yi mer roñewu daan na nag race vraiment ñun doyal nañ ci ci maire léegi nañ dem ak suñu bopp alors conférence de presse bi looloo ko waral ngir demal suñu dispositif culturel demal boppam na mu daan demale boppam ñu bañ dégg ci mbedd bi wala dégg ci ma Samba ak ma Demba ñu naan maire bi moo leen joxoon lii maire bi def na nii maire bee dispose de dara nekku ci nii ma leen ko waxee noonu la histoire bi demee moo waral tey ñu toog ñun ñuy membre dispositif culturel ñun ñu fekkee woon jotaay yooyu di ko dund ba tey ñu toog ni dinañ ko leeral tey ba mu leer naññ ba suñu der set on est libre et on est transparent et on est des citoyens on a droit de s'accompagner avec qui, qui que ce soit qui a le le charisme et la capacité de nous mener vers notre essor kooku ku mu mën a doon ci Pikine dinañ ko tànn dinañ ànd ak moom dinañ liggéey ak ci culture pour le moment nag événement yii di ñëw Lamine Gueye monsieur Lamine Gueye la jël comme parrain ci événement yii te su lu weesoo dinañ defaat beneen conférence de presse boo xam ne dinañ ci leeral yeneen ak yeneen ci walu ni ñu bëggee liggéey suñu biir gox mu Pikine Nord ba ci département de Pikine ba le Sénégal parce que nous sommes des Sénégalais à part entière wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh